asalaamaaleykum ami internetu Saint-Louis TV man la la siste tuuti présentatrice maa ñëwaat di leen présenter seen émission bu bees tàkk bi nga xamante ni moom mooy lu ci kër gi. lu ci kër gi nag boo ko déggee lépp loo xamante ni thème du jour la rek dañ koy fas yéene développé tey nag dañuy seetu gi suñu yaay suñu xarit suñu idole ndaanaan ku li fadrin ki nga xamante ni nee naa ko ci saa yi waxee. kenn du ko dañ koy naw ci kàddoom yu rafet mi Adjaratou Ndella Pène nekkoon animatrice fee ci RTS nekk théâtrekat bu mag lépp lu mu def rek rafet na Pène Ngalle Ouda Damel suñu yaay ji moom la ñuy seeti ji tey moo fas yéene nekk suñu gan ci seen émission li ci kër gi yaay Ndella ñu ngi lay nuyu di la ziar. tuuti maa leen di fay sant yàlla bu baax a baax waa Saint-Louis TV ñoo ñëw. fekk si la ba ci biir kër gi. ndaxte ñu ngi ci biir kër gi. émission bi li ci kër gi la tudd. tey suñu thème di jours lu ñu fas yéene waxtaanee mooy. sëy yi nga xamante ni gaaw na tas. problème bi bëri na. xale bu jigéen boo ci mayee tey. toi et moi la wax appartement meublé man ak sama jëkkër bañ la ba pare dañuy may suñu conducteur bi nga xamante ni sister Binta tamit mu def présenté boppam ñu suuf si waxtaan bi yaay Mhm. merci beaucoup sister Tuuti maa ngi ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax nii sister Binta la ngeen di am foofu noonu ànd ak naataangoom bu ñaawul bii nii muy sister Tuuti Diop ah. jànk maa lay dalal bu baax a baax di dalal tamit suñu yaay ji nga xamante ni moom la ñu seet si moom la ñu fekk si ndaanaan ku lu fàttirin ah comme niñ ko waxee rek defe naa ne Sénégal partout dans le monde laay wax kenn dootu ko laajtee ci kan mooy maman Ndella Pène maman comme ni ko sama rakk ji waxee rek mhm. tey ñu seet si woon la mhm. muy ci biir kër mhm. jigéen ak këram jigéen ak na muy toogee ci biir këram sama kalaas gi dañuy dugg tey si sëy même pas un mois mën nañ ñëw jox leen alal ju bëri même pas un mois ñu divorcé nan la ñu war a toogee ñun suñu biir néegu sëy sëy day moom muñalante rek la soo bëggeewul rocc waajur yaakaar naa ni waajur royukaay la. Mhm. te bu la yàlla joxee waajur bu baax rek war nga ko roy. Mhm, waaye soo bëggee fab sa bët foo xam ne di nga xool foo xam ne àggu fa. Mhm. di xool xoolu gëleem. loolu du sotti. déedéet. yaay ndee la dogguma la. damaa bëgg xam lan mooy xoolu gëleem. xam nga gëléem dafay xool ca kaw. gëleem foo ko fekk du xool ci suuf kaw rek lay xool. di seenu ca kaw boo amee nangu. xolu eh, xelu gëleem mhm. doo mën toog sa sëy ndax sëy mhm. dafa neex dafa metti mhm. te kuy sëy ñaan yàlla ñaan nga yàlla jaboot ñaan yàlla jaboot googu ñu barkeel ndaxte tëb tëb rek dugg ci sëy te seetlu woo ñaan lu te nga ne yaay di ma bëgg doo ma ci seetal ba xam ñaanal ma ci yàlla ndax baax na wala déet bu mm-hmm. fekkee baax na mm-hmm. mun la dugg su fekkee baaxul ah sëy bi de baaxul nga ne ko yaay teel ñaanu ci yàlla ba xam ndax yàlla li moo amee du jeex mm-hmm. bu boobaa ah yàlla mën na ko jubalee yaayam jubalee ko ak ki muy sëy ñaan yàlla nag sëy bi barkeel def ci njaboot gu barkeel ndaxte sëy ñaar a ko yore boo doyloo rek daa toog sa sëy ndax doylu dafa baax te kin tëbu tëbu rek am mhm. dangay jàpp fi mu jàpp fee yàlla lépp seen njaboot barkeelee aw leen mhm. du kuy ñaan nga yàlla seen njaboot barkeel ba aw la mhm. wàññi sa bëgg-bëgg sa jëkkër fu mu la yem loo yam fa mhm. fu mu la xool loo xool fa bala mu laa xool la sax wala mu laa sax ni dafay am ni jigéen da ngay diiñ mhm. da ngay nga du ma laaj sama jëkkër lu ma amul ndax bu boobaa mu jéppi ma dëgg la ma joxee baax su ma joxee itam baax na mhm. ma suturaal ndax ñaa ñun ñoo ko bokk jigéen noonu lay def boo suba balaa sa borom kër di jóg moo xam yow na fajar moo yow daal góor góor ba fajar bu mu la fekk lal Mm-hmm. juga sangu ba set mm-hmm. defal ko defal ko ay ndékkeem pare yëpp mm-hmm. ba xam ne bu yeewoo bu jullee baax na bu julli tam baax na yow l'essentiel yow julli nga ba pare rek laal nga yëpp su ko defee mu ndékki ba suur madam maa ngay liggéey yaanu yàlla may kendal jàmm xam nga loolu neex nga daal pare du man ndékk sax bon muy ñëw dama ndékki yëpp daal ne maa ngay dem marché sama demee marché lu ma fa yàlla jox ma jënd lu am ndax biir du naan indi si biir kër gi ak ku ci yàlla yemale wërsëgam nag da boo sabab la yàlla dimbale la nga daal di ñëw toog sa lu neex sa borom kër bu la joxee baax na bu la joxul baax te yàlla daf lay suturaal ndax loo sabab rek yàlla jàppale la nga togg sa añ bu neex a neex sa jëkkër wàcc fekk nga lal def sa ay napp ak sa yëpp ba du ma nekk sa mbindaan yaay ndeela foofu nag la ñuy ñëw mhm. du ma mbindaan ñun ndaw tey mhm. yaakaar nañu sëy ñun ak mbindaan la mhm. mbindaan a war a taajal jëkkëram añ mbindaan moo war a defaral jëkkëram sa jëkkër sa néeg mhm. est-ce que loolu yow contre nga ko tey ci ñun suñu jamono ak seen jamono ndax loolu amul woon man d'accord ma ci d'accord mbindaan daal man mhm. jànq daal jànq sama néeg sax maa kaa defal sa bopp ndax sama néeg bi muy mel na euh, marché waaye sama néeg maa kaa defal sama bopp. du ma sama jànq ci dara. bu ma dee damaa nekk ca waañ wa nga jàppale ma ci waañ bi. Mhm. su loolu jotee maay leen sama borom kër. Mhm. maay teggi ndab li mën naa ne nga dem teggil ma kuddi yeeg yooyu fekk yow yekkati nga bool bi. Mhm. waaye duma bàyyi yëpp ndax dafa jaaduwul sa bàyyi bàyyi sa janq muy lay joxe sa jëkkër. dafa dul yoon. kooku kenn du ne ànduma de ànduma ci man. man daal ànduma ci déedéet. dégg d'accord nga ci sëy appartement man ak sama jëkkër samay doom ak xaj bi. man daal kooku baaxul santu yàlla ndax man xaj dama ko sax ragal. dëgg <laughs> baax du yee sax xaj. ndeysaan ndax boobu gërëm ko la seesi. Uh-huh. dafa am xaj rek si buntu kër ndax xaj dafay toroxal nit. dëgg kër gu am xaj. waaw uh-huh. ah, kooku kenn fa dugg mënoo fa dem. ndax boo fëggee wala nga sonné mu ni mbaw. Uh-huh. daal di wàññi loo faa wut. waaye boo fëggee ñun la bisimilah agsi mhm. kooku moo dàq xaj naa noonu boobu xaj dafa yiwul xaj dafa yiwul mhm. dafa yiwul te ku ku yar xaj rek yaakaar naa ne xaj xaj nag mën nga ko gàddi si sa kër boo xam ne sàcc man dafa fa ñëw mhm. nga làq foo xam ne boo guddee nga tekki waaye bu fajaree yeewal xaj bi kooku moom d'accord naa ci waaw maman Ndella la <laughs> mooy comme li ñuy wax rek mooy li ni li tuuti wax affaire jànk yi tey da ngay am sa jànk mu nekk ci biir kër ga mooy toppatoo sa jëkkër moo koy juyal ndox ma sangu moo koy taajal lekk moo koy defal lu nekk tey jii bu nu wëlbatikoo foofu ku góor ki bu fekkente ni moom moo la takk indi la ci biir kër ga jànk bi ñëw di ko toppatoo ni mu koy war ni nga ko waroon toppatoowee yow toppatoowee ko noonu toppatoo woo ko noonu ah nga gis tey ji mooy waral ñu bari ñi nga xamante ni dañuy takk seen jànk bu ko defee ñu naan ñun jigéen ñi di tépp tépp di raaji raaji di télé télé defe ne ñun ñoo ci nekk fekk nekku na ci nga bàyyeek ak bi ak sa jëkkër mm-hmm. léegi bàyyi nga ak jànk bi ak sa jëkkër ba sa jëkkër fekk si ka mm-hmm. sa jëkkër wut si ka takk ka mm-hmm. léegi après yow jigéen boobu noonu nga bëgg réagir loolu est-ce que mën na sotti wala sotti ndax yaa am la sa place ndax boo am la ah. sa place sa kër ñoo toog ci ah. jeex na yaa lu ba libéré sa jëkkër libéré ka sa minna day ka jàng naan ma yaa di ko yaa ko wan yoon waaw waaw waaw di yaa ko wan yoon <laughs> ndeysaan ndeysaan <laughs> sama classe gaa ngi nii tamit ah kun si takk appartement yi nag dama ko kontar mhm. fa laa doon jëm appartement yi dafa yiwul mhm. ndax yow yaa sa jëkkër kenn du kenn du leen seet kooku tubaab bi sax dafa doon ko léegi nag tubaab yaa ngi yéen a indil problème moo tax ñuy soxla appartement moom la yi ngeen muñ ngeen muy xam ne gone dana màgg dana tële. Mhm. ah li loolu la wax maire yaa ma sañ def waaye yaay jërëjëf yaay kontaan naa bu yàggee dafa daal wàcc. waaye bu ne benn nga di fëriñ fëriñ ni mhm. mu ne ah ah nag ki am naa fu ma ko jàpp dangay nax naxa sa golo comme sa yaay nga bàyyi ci kër gi ñëw ci sa góor na nga daan defal sa yaay defante ak sa góor boobu jàmm rek mooy am lu ma wax baax na yaa ma ko sañ wax yaay yaa ma ko sañ ah yaay yaay mais maman est-ce que loolu mi ngi amati ah, est-ce que loolu mi ngi am est-ce que loolu tey am nañu koy sëy est-ce loolu nekkul woon comme parce que da ngay gis ñu naan sayu euh, say sayu yàgg yooyu sama classe gi danaa sayu yàgg yooyu duñ ko sa yeeti hmm. bala ñuy am lu neex bokk ak ñun kese ak suñu jëkkër ah, te dégg naa jéeg dëgg jéeg dëgg neen bala ngay xam ne jég dëgg nga nga fekk sa kër goro. nga dem sëyi sa kër goro ci waxu bintaa bi. man daal sa kër goro. Ah. nga sëyi sa kër goro neen jég dëgg noonu lay def. lay def neex. ah nu mu neex foofoo neex nga bàyyi sa yaay bàyyi sa papa ñëw sa kër goro. Ah. ñëw sa yaay dëkk ngay dëj lu métti. du la mbugal yaay ndeel mbugal bi laay bañ nag mbugal laaj naa la xoolal yéen a ñuy neexal ba ñu ñëw bu ñu toogee dugg si ngeen mbugal ñu big sëy moom ñuy mbugal déedéet léegi xoolal même am naa goro yoo xam dan laa bañ fexeel mhm. bu ñu bugg la ndeysaan boo demee ci bitig bi wërsël sedd ñëw yaay kii de lu sedd la naana dafa tàng daal di ko upp kaay bi daal di ko upp nii mhm. dégg nga nit boo ko dee defal lu baax dafay jé dafay dafay albatiku waaye maman ah, am na goro yoo xamante ni seen xol dafa dëgër de loo leen dafa dafa defal teraanga du tax ñu bëgg la nit bu la xasee ba bañ ni ko wolof di waxee rek bañ na la loo xam ne jar na ma nag ma ñaalu ci yàlla sax lu ma sama goro ndax bëgg naa sama jëkkër bëgg naa sëy mhm. te bëgguma génn ci kër gi danaa dem ci kooku am sama benn xarit bi ne xanaa ku soo ko mën ñaan yàlla foofu la ñuy bëgg ma foofu la ñuy ah. dugaatee ci waxtaan bi mhm. ndax ci tàmbale bi dama dégg nga ni boo bëggee da ngay wax sa yaay mu ñaanal na wala sëy bi est-ce que dina dem léegi ñu ndaw ñun ñooy demal suñu bopp ñooy wutali suñu bopp suñu ñaan ñooy def di lu ne tey da ngay gis ndaw si nga xamante ni mu ngi ci biir këram di sëy yaay ndee la dem di wuti ji ñaan ba sëkk ak sëriñ ba la mu waruta woon sëkk ak sëriñ ba xam nga am na fi dégg ngeen ko ba tàyyi wax ngeen ko ba tàyyi yee ci ba tàyyi est-ce que jigéen tamit xalaatuloo bii jénn ci ndigal la war a jénnee ci ndigal la war a ñëwaatee waaye boo demee te tàggoowoo li la ci dal dañuy naan yow yaa ko yow yaa ko teg sa bopp te yéen seen jamono bu ngeen doon dem ci kaw ndigal ngeen doon demee ñu suñu jamono bu ñuy dem demeewuñu ci ndigal buñ la woowee téléphone suñu la jotalee message lañ lay envoyé tonti mhm. nag soo ñu tontuwulee message ba gis nga ko soo ñëwee mooy bindoon naa la message jisoo gisoo nga ko tontu guloo ma wala woo naa la jotuma la noonu la ñuy sëyee ñun te yéen sëyeewu leen woon noonu nit dafa am kilifa mhm. xam nga nit dafa damaa teg fii sama jëkkër. Mhm. xam ne sama kilifa te yaay ma ci biir kër gi. Mhm. lu maa def dinaa wax ni yaay bu doon bu doon bu doon bu doon dëgg sax nay wax ju neex de. Mhm. yaay ay yaay yaay di ma la bëggee ay yaay maa la soob yaay sama yaay yaay loo bëgg. xam nga mag boo ko neexalee rek moom bu yeboo mu biile bu yeboo waaye bul xool biiñ ba. bul xool doon ba ndax bëgg la bëgg la mais yow fexeel. ba mu bëgg la mm-hmm. fexeel ba ngay def da def ci ngir yàlla bu yàgg bu yàggee rek yàlla dina ko albati mm-hmm. dañ la bëgg ndax ku ñëw mu gërëm la bu la gërëmee itam yow yaa ngi sëy ngir yàlla bu la gërëmul yaa ngi sëy ngir yàlla ndax ñaan nga yàlla njaboot ba barkeel mm-hmm. te njaboot rek moo tax ngay sëy ndeysaan ndeysaan am na solo am na solo am na solo macha allah kon def naa ni war na nañu gën a góor góorlu si sëy yi ndax su sunu yaay yi ku topp seen tànk doo ko ci benn yoon maman maman Ndella li tuuti waxoon la foofu laay ñëwaat damay gis ñu ñaan jëkkër boo ciy dugg danga koy li saxaar léegi bu fekkee dañ ci dugg fekk waa ji nga bëgg ka mu bëgg la nga li saxaar ko ñun la yéen ñaar seen rab àndul naa nan di def jàpp jullee taal sa taal sa borom sa yàlla hmm. eh. ñaan ci sa kattan ak sa baax sa yërmande li gën yàlla nga ma ko defee bëgg naa ko de <laughs> te yaa ko dugal ci sama xol ma bëgg ma bëgg ma sama borom defal suñu diggante yow yaa mën kenn mënul ku dul yow dëgg la yaay la ñun ah, wala nag ku bëgg nag barkee la da ngaa jàpp julli nag taal sa loxo ko koo yaakaar yàlla yaakaar xam nga sëriñ bi yaakaar mais yàlla la yaakaar rek kon bu leen kenn bu leen kenn jëkk ci sëriñ mm-hmm. bu leen kenn jëkk ci yàlla yàlla mooy karim moom ngeen di ñaan mu may leen sëy yu bëri ñu ngi koy takk ci réseau sociaux bi. de tey jii damay dégganteeg euh, Maysa mhm. te musuma ko gis xaw ma xamoo sama jukko xamoo sama comportement man xaw ma comportement am xaw ma ka mhm. ñu dem tey jii ba takkante sëy après problème yu bëri ngay gis après. loolu noonu bu fekkonte ne ànd na nag suñu xel wala am na nit koo xamante ni ko am kilifa lanu hmm. ah kilifa li naan ku amul kilifa rek jinne doon sa kilifa te bu jinne doon sa kilifa defe naa ne doo xam fooy takk dangaa nekk càppaacoli rek hmm. léegi sa yu bëri ñu koy takk si réseaux sociaux yi hmm. après conséquences yu bëri yi la siy fekk yaay booy loolu est-ce que amoon na seen jamono xamuñu ko woon sax xamuñu ko woon sax wallaay xamuñu ko woon mhm. ñu ngi koy dóori gi si àddina bi na dafa soppi ko dafa jeex. dëgg la àddina bi dafa soppi daa gisul nekk. daa gisul nekk lu de waaye yéen yàlla bu leen ci yàlla ya boole daal. amiin Amin amin. amiin dara yonent bi yàlla bu leen ci yàlla boole. amiin jox leen bërëb kër yu baax. amiin amiin sama rakk ji ngay ñaanal. sama rakk ji ngay ñaanal moom moom. yàlla jubale yàlla nga ci topp léegi dara yonent bi. lu luy te fekk sa tal te rek ak foyer. ndaxte dañuy ñaar ñii mënut a ànd. Mhm. liggéey toppatoo sa jëkkër. Mhm. ndax boo waree xëy 7 heures du matin. Mhm. sa jëkkër xëy 7 heures du matin. yéen ñaar yéen a jëndandoo ci kër gi. nga war a wàcc te 13 heures. moom mu wàcc 14 heures. yaay ndeela te yéen bu njëkk ba da ngeen doon teel organisé wu ci seen bopp. balaa ngeen di xëy peut-être bu ngeen fi bàyyee jànk bu heure ak yàq añ jotee yéen a doon ñëw séddale seen bopp wala ngeen yàqale seen bopp. waaye ñun fa la ñuy toog di liggéeyee fa la ñuy woowee jànk ba ni ko yàqal añ. ba la uh-huh. séddalee. pengaa uh-huh. la. man daal man damaa daas fanaanal. Uh-huh. maa ngi yow sept heures du matin noo jóg guddi gi. laay lal li may lal suñu ndékkukaay. bu dee ndox mu tàng. ma tàngal ca duus douche ba. bu fekkee amu ma tàngal naa góor góorlu rek ba boo yeewoo ñu yeewoo ndoo yëpp paree ndoo. ku ne jëm nii kii jëm nii. boo àggee nag ah mën nga ni ma de xalaatoon naa ñu togg nangam nga woo jànq bi génne ci frigidaire bi mhm. nga togg nangam ak nangam yow fexeel ba mhm. janq bi nga nga defal ma lu baax de mhm. mel na maa ngi fi ndax su ma la wóoloo ba bàyyi la sama kër defal ma li ma bëgg dama la ko ñaan jànq bi daf laa daal di déggal dégg nga moom daa moom dangaa waaru mm-hmm. waaye nag daanu góorgóorlu daa ci gis ñoo xam ne dañuy baax man liggéey mm-hmm. am ñoo xam ne dañoo jàngantu liggéey mm-hmm. waaye ku ci mën liggéey moom dañ koy wax ni que lii laa bëgg def soo wàccee fekk ngeen ko ah kontaan naa daal di ko tàpp tàppal ni ko yal na la yàlla fay. xam nga loolu daf laa daf daf laa daf laa yokku ngóor na ni ko sagal nga ma lii nga ma defas yaa ma sagal nii kontaan naa de. ay te na na na daal di defas ngeen añ ba suur. bu mhm. ngeen amee seen ful bu ngeen amee seen ak lu ngeen kii day baax. Mhm. toog nag toog jàpp seen jàmm. bu julli jotee ngeen julli seen julli toog nag di waxtaan seen waxtaan kaay tey li tey de bàyyi maay togg reer tey tey bul togg reer maay togg reer mm-hmm. xam nga loolu dafa neex a togg sa jëkkër reer mu reer ba suur mm-hmm. ah dafa neex jànq bi mën na togg añ bi yow nga togg reer bi dëgg la dëgg la mm-hmm. dëgg la Walaupun ya enggak lah, ñu ngi de di la wax say dernier mot say doom ñoo fi ñëwoon mi waa Saint-Louis TV mm. amat amat mbégte ak contentement bu baax a baax ci daje bi nga xamante ni daje nañ ko waxtaan yi nga xamante ni waxtaan nga ko ak ñun xam ni du doon suñu ay dernier dijee ndax incha allah dinañu ñëwaat ndax yaay suñu yaay pengaa la ñu tàggatoo ak yow waaye la nga tàggatoo kontaan naa ndax xam nga lii yéene la mm-hmm. ndax li xamul te garab bu dul studio rek may kenn. dëgg mm-hmm. ku ne li nga xam ngay def xam nga da ngeen ma yéene rek waaye am na ñu ma dàq li ah am na ñu ma dàq mais bëggee ah, ndax man ma ndar dégg nga am na man rek na mm-hmm. ñeneen mais lii ngeen def dafa footi man yàllaa man nag mboole boo ma boolee yéen nag du ci yéen mm-hmm. du ci man ci yàlla mii dëgg la dëgg la kon nag na yàlla barke seen lépp te seen télé bi di dem di dem di dem ba dépassé leen ci dara lépp bàyyi nag ni ngeen àndal nag mhm. yàlla may leen kàttan ak wér mhm, ak sutura ak teraanga yàggal leen ba ñu am ku ne am sa yëfu bopp ci suñu borom yal ko yàlla def dara jënanti kon sama mag ji ma jox nag mhm. dig daje incha allah rakk ji di la wax jërëjëf mama tàggoo bu dul tàggoo rek tàkkal macha allah di wax ni yow suñu idole nga ah. référence nga si dëkk bi monument nga macha allah di la ñaanal yàlla may la gudd fan ak tal ak wér ak fekkee moom rek lan lay ñaanal li naan doomu ñay kenn du ko ñaanal mu rëy danga koy ñaanal gudd fan di la wax ni soxla nan la fi ba ci kanam rek macha allah kontaan na nu seetaan kontaan nan bu baax ñu doon ñu déglu kontaan nan bu baax di la jaajëfal merci beaucoup kon mbokk internet yi lii moo doon seen émission li ci kër gi li ci kër gi nag tey yaakaar naa ni liñ leen indil neex na leen ndax ku ñu seeti ji woon mooy ndaanaan ku li fajirin mi ajaratu ndeele pen pen gaala ude damel moo nekkoon suñu invité du jour yaakaar naa ni